Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, honorables collègues, je vous salue. Monsieur le Ministre, je sais que je ne, je ne vous ferai pas surprise aujourd'hui. Je suis du Parti démocratique sénégalais, un boubou que j'ai laissé dehors. Mais vu les nombreuses injonctions que l'État du Sénégal a eues, surtout concernant sa justice, j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Monsieur le ministre, je pense que la fois passée en commission, j'avais posé la question. Qu'est-ce que l'État du Sénégal et la justice sénégalaise comptent faire concernant ces décisions du, Comité des droits de l'homme, surtout sur le cas Karim Wade Monsieur le ministre, nous avons dire une bonne fois pour toutes. Parce a une patate chaude, même si vous faites que sénégalais. Monsieur le ministre, et sur cela, je me quel, quand est-ce que l'État du Sénégal va réagir parce que nag su ma juumulee vous aviez 92 90 jours francs pour joxe seen seen réponse et on attend toujours ak li fi jot a am yëpp fonctionnaire yi ñu dàq ak yëpp yooyu bëggoon naa si am ay éclaircissement monsieur le ministre concernant les prisons je pense que ni bu fekkente ni dañu am ku fa dem visiter xaw ma ku mu doon nag ñu ne les conditions de détention aujourd'hui nit ñi ñëpp c'est à saluer man damay laajte ban prison la ñu dem 1960 am maintenant bëggoon naa tamit ñu wax ma ñaata prison lañ fi tabax wala yéen cellule la ñu yokk monsieur le ministre rien qu'à visiter la chambre 9 pour la bi de sa yaram dina garde pénitentiaire il faut y bu ñu ubbee bi ñoom seen bopp dañuy jël recul ndax chaleur la chambre bopp dégagée. monsieur le ministre je pense que les conditions de détention sont inhumaines et on est au 21e siècle monsieur le ministre j'ai vu dans le rapport et vous l'avez défendu la fois passée en commission que ni yokku nañ avantage monsieur le ministre je vais vous dire la la 100 francs paracétamol lay jar Vous faites ni dama nekk en prison d'âme, ñu fajee ma paracétamol dina yéex a bu fekkente ni dama am problème cardiaque ñu jox ma paracétamol damay ragal sax ma jaare fa dem fële né monsieur le ministre donc yooyu yëpp c'est des conditions yo xamanténi il faut ñu xolaat ko revalorisation c'est bien mais je pense que insister pour que la personne reste dans sa dignité humaine est l'idéal monsieur le ministre lool daf may permettre rek ñu wax ci conditions de détention et les les longues les longues détentions monsieur le ministre tay jii condition li ñu mëna def tay pour éviter cela barina nous ñëpp on est régulièrement domicilié bu fekkente ne duñu ay sans abri on est régulièrement domicilié nit ki bu la defee dara bu fekkente ni la mu def rëyul parce que nag sàcc ginaar amna, na sàcc nen am Mon mën nañ ko teg peine boo xamante ni kenn du kenn du ko jël di ko tëj di ko monsieur le ministre et sur pour revenir sur un autre registre muy construction tribunaux euh, euh, le tribunal de Saint-Louis je pense que votre prédécesseur depuis juillet 2015 la avons livré livrer tribunal de Saint-Louis monsieur le ministre tribunal bobu Union européenne dugaloon na ci un milliard l'État du Sénégal dugaloon 1 milliard 5 mais depuis 2015 non seulement le tribunal n'a pas été livré mais les travaux sont à l'arrêt bëggon na ci am ay éclaircissement lu tamit monsieur le ministre je pense que tay li ñëpp wax rek moy dëgg justice warta nek kumba am nday kumba amul nday et lolu comme dañu jiñ Karim Wade tejj ko tay ji defé na bu rapport yi génnee cour de contrôle li nga xamanteni moy cour yi gëna sacré suñu bir suñu constitution épingler ay nit permettre justice pas plus tard que ce matin on a vu dans la presse que ni rapport yi rapport yi bi mu épinglé monsieur le ministre ñu di ñaan rek ngeen parce que nak togn je vous remercie